sëñ bii danoo wan rek fi bunt bi nekk woote ci soxna asugaawan mas na maa woolu ma ñëw mu ne ma xasi rek man jaa bil xasanati fa lahu xayrun minha laa bëgg nga waxal ma ko nga wax nga tafsiral ma ko doomi sëñ tubaay dañoo bëgg xasida yi te sëñ Muntaxa mii mbuusum gone muy sol yàpp mag la woon ci bi muy nekk ak baayam ba tey jiw mag ci yoonu murit kenn musu koo limaale ci ay doom authenticité rek lay dund mu gu jëkk ga képp nu wat mboolem benn benn yi tàqaliku woon baax ga ca gee tab ga ca kee yërmande ga ca kee xam-xam ca kee yooyu yëpp la dajale ci jëmmam ci ba noppi muure ko nag taalibe gu rafet yaata lool mbirum sëñ Tuubaa mi waaye xasida yi kamtalaaye li nga mën a waxal sa li li jàmm a xam ci sëñ Tuubaa ci xasida yi rek la ko sëñ tubaa bindal boppam sëñ tubaa dafa wax ne laa yantahi li majlisi seytaanu stabatil mamaru wal awtaanu nee na sama dox tey na sama dal sama dal tey na seytaane du jublu sama barab benn journaliste camerounais dafa ñëw ak màggal di reporter si ba mu demee dafa tuub ne tey laa ma gis tey laa ma sa gis ci àdduna mbooloo mu daje toll nii ci benn barab te kenn faatu fa loolu dañ koo seetlu waaye la lu toll ni li daje Touba te kenn du rey moroom fu ñuy buuxante ne ngeen waroon naa fekk bu doon ci li aada xam kon bu ñu dajee tuubaa ñu bari dañuy dee ci biir jumaa ji ñii dee kër sëñ xalifa daal ñii dee kër bu xalifa général des Baye Fall ñii dee ci armeel ya ñii dee ndax ba bousculade moo mel noonu fu mbooloo di daje moo mel noonu mu ne lu toll li daje Touba daje Touba te kenn faatuwul sëñ Touba dafa wax ku xas seytaane ku dul man mu fayu ku dul man seytaane masala xonn fi benn barab def loolu fa neexul yàlla nga xam ko wéy ca ba mu des man daani mbàkke juuf mu ne ko mbàkke mu ne ko xam nga lu tax seytaane mënu lu ma dara moog àdduna mu ne ko buñ ko xamoon jël mu ne dañ leen a fi sama kanam yàgg gi sëñ tubaa ànd yàgg ci àdduna yàgg ak yàlla yàgg ak yonent bi ci biir xasaay dem yi la koy wax abatullah salaasu alfa amin qabla irsa irhaashi aadama wa hawaa nga xam ne boo ko weddee sëñ tubaa nga weddi sëñ tubaa dafa wax ne habliya kaw na xale mi yanqulu min lawhika yaa man lii saadati damin habliya sidqan wa wafaan warida fi kulli cheyin wa taxul lil xarada ila siwa zaati soxta abada ma saa ani yaa man safa i kabada zakartukal yow bi xëyri zikri tur yàlla ngoog yaa man xamaa ni anasar makri tentation yi dafa bari lool agression yi bari lool ci lislaam mu jóg moom mi nga xam ne fi ne moom rek moo mën a wax yàlla déglu ko mu bëgg a wane fi bunt bi nekk mu xasaay di nga xam ni dafa boole lépp niñ ko waxee lii jut bi kaw nil makkaati bi hudan abadan hajjan wa qaswan wa mahral huuri wal xiidi sëñ tubaa nee na lu baax looy def yaa ngi def lenn lu baax waaye boo ne ak xasida ku jàng yaa ngi boole lu baax yëpp ko def xasida yi ni ma ko mën a misaali fii jamono toll bu ñu doon ay rajo sunuy bëtër yi dafa jeex sëñ Mountakha sëñ Mountakha bëgg noo sarsewaat bëgg a sarsewaat batterie yi mhm. nit ñi seen batterie yi dafa jeex ah ah fa min mushtakin faqaran mhm. wa min mushtakin diinan mhm. wa min min mushtakin daynan wa daje na ci bindee fi yu bari tawat yu bari ma yàlla gu bari gi batterie yëpp wi dina liy chargé waat batterie yi nag mooy xasaayiti borom Tuubaa yi sëñ Tuubaa wax muhammadun zikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru xalbi wa ahdaai wa raaxaati nee lu ma sonn sonn lu ma loof loof su ma nee muhammadun benn yoon rek damay amaat beneen souffle beneen souffle amaat beneen élan amaat beneen énergie bu yees sëñ bi dafa bëgg a sart suñu batari xol yi xasida yi mooy lépp naka jëkk ñi jige woon borom euh, damay faral di wax ni fu sëriñ bi nekk léegi la xew waaye bi sëñ Tuubaa nekk jaareem kel xalaatul naan fu sëriñ bi ne fu sëñ bi ne ku ko wax dangay ngay dee ci benn yu mbaa kalaayu ci kër gi ba euh, ba xiif jàpp na ma waaye kenn du la wuyu kenn talu la koo dajal du la wuyu boo bëggee gis sëñ bi da nga naan ana fu sëñ Masamba nekk ana sëñ Masamba fu mu nekk noonu la sëñ Masamba nga wóor na la ni boo fa demee léegi gis sëñ ndax boo dee kilifa gu mag. léegi dawal sëñ tubaa ñëw fa di fa indi ay téere yu ñu war a sotti bu ko defee mu ko boo demee ne ko diwa nga fa wala sëñ tubaa woonu ko moo dem ne ko diwa nga fa boo bëggee jigee sañ tubaa taxool ak xasida yi ñi nga xam ne ñoo féete woon ci xasaay ci borom tubaa yi sëñ bàmba daf leen a gànjoo ni buur ak dagam bu doon kuy lekk kanaan ñoom la ñoom lay bokkal ni nga xam ni euh, mu at malaaykatul muqarraboona yi bu yàlla defoon kuy lekk kanaan ñooñee lay bokkal waaye xasida itam ñu ci féete woon di ko jàng ak di ko sotti ak di ko bind dañoo miinoon sëriñ bi di jooj ndoog moom mu di leen gis waxtu wu ne miraaran ci jant bi ak li muy jafe-jafe ak li muy naqar naqaree gis ñuy gis mbégam di gis bëñam di jël di barkeeloo ay tibi ñamam muy saqul ne di leen ko jox bari na loo xam ne lii wax na ko ci boppam ca waxtu wañ koy jàngal xasaayit képp la la doon daanañ jàng xasaayit ba ci yàgg muy déglu di déglu di mi ngi ba yàgg mu jumen bu def këlëng këlëng këlëng ba nga xam ne kii àndutul ak sagoom daanañ ko jàngal xasaay ba yàgg mu ne xif benn muy buuna te xeeti ñaat nit ñi nga xam ni daaj yi sëñ xew doon adduna fi mu ne ñii bu ñu jàngee xasee guñ jàng léegi busra busra sama turoon doo leen jàng de nu kuréel bi toll busra yi toll nanu kenn ku nekk jàng busra da ngay xool ñaata busra la ñu jàng genn kàddu ngay dégg mel waaye ku ci ne fi mu nekk nii kuréel yi loolu moo tax sëñ Tuubaa sosoon ko lu ñu jàng benn benn xës bu ñu jàng jàng nañ ko kemtalaayal nu mbooloo muy jàng toll bari gi li sëñ Tuubaa soxla lu mu gën a bari xéwal yi gën a bari lu gën a bari jàmm ji a bari yafirru min alxaari lain wa isbu fa asraaru zikrillahi tuxsil maanida bu jëkkatee waxi borom tubaay rek iblis law na tabassama almuxtaaru min jinaasi ku ne wax na ko fii jinaasa mooy xayrun mawaddatuhu dayrun adawatuhu mayrun madihatuhu lil muxlixlifatini alxaqu tammalahu wal fahmu laasamahu wal ilmu max jëmlati aadawi fi rasani loolu mooy jinaasam nee na jinaasam boobu mooy bëggal rasulullahi boo bëggee xam li soppi làkku réew mii ba bu murit dee wax nga xam ne kay wax ab murit la naan sëñ bi soxna si fatu dallu xéewlu waxin yooyu wax yi ni sëñ Tuubaa yu mu waxee ci xasida yii la ay waxinam la tëbb réew mi ba kenn dootu wax tudd Rasulullah nan jabaram mbaa soxnaam mbaa euh, jabaram mbaa bàmmeelam mbaa muy lekk mbaa muy naan waxin yu sëñ Touba dafa wax ni rasulullahi waxuma ko tagg rappetu tagg li tubaab yi waaye seen jabar yi ak seen xaj yi ñu di ko way plage yi di ko way weer wi di ko way leer gu neex waxuma ko rasulullahi jiitu loxo bi ab kaaril am daaxi la daa ma duxulu amri wa jahru sayi wa amri xala daa nee na ñeege maari tagg laa ko tagg yu yes peq paquet tagg yu yes peq yoo xam ni kenn musu koo dégg kenn musu koo wax kenn loolu laa tagg rasulullah yi moo tax isam tadaxtul muntaqa tabassama wa qaala lii rabbihi fadlan suma nee na su koy tagg ma ngay muuñ di bég di neexu ndax tagg wii def koo wormaal dalay wan daraja yonent bi sallallahu alayhi wa bala ngaa xam teggi ni sëñ tubaa ak nu mu fonkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga yër xaside yi moom wanewul ni kat dama koo xam dama koo yab li naan damaa yem alxuraan loolu du wax yu nu kër gu mag damaa mi damaa yem sëriñ Rasulullaay du wax yu nu kër gu mag sëñ Touba dafa xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo xam ñëpp gën koo bëgg ñëpp gën koo war maa ñëpp déglul fa kayfa atruku aman shukra za wasi shukru wasitin asnaal wasa iti turan inda zilmina ni asnaal wasa iti turan inda zilmina aw kayfa usni ala fardin hawa xuluxan an marhi xadoona luslu zawil fitni nu ma koy taggee moo nu ma koy ñàkk taggee nu ma koy taggee ak nu ma koy ñàkk taggee lahu alayya li wa ilaahi day du sanam damaa amee borub tagg ko waaye xawma ma ko de di ko junj di ko mépp di ko joxoñ di ko misaal ngir cofeel gi ci moom rek bisil kamaali bisil jamaali bisil dawaayi bisil kuróobi yooyu la koy wax naan borom nang borom nangam ja borom nangam ja nangam kamel nangam taaru teggin woowu inaabatu la ak toroxlu la xasida yi nan ko fonkaat bu baax a baax a baax cheikh mouhamadul murtada mbàkke ibnu xaadimu rasulullahi dikk na new york ñu toog ca kër sëñ Touba mu war a am lu mu war a bind ñu jox ko kayit di ko jox suume ndekete xasida ndekete jox nañ ko dara daal sëñ bi mi ngi am gan ñu muy waxal mi ngeeg plume bi mu war a bindee def nii ak jataayam bu tedd ba ak na ko yàlla bindee saa yu demee ba loxo bi tiim suuna bi rek mu yëkkatiwaat ko fekk booba am na lu koy teel saa yu demee ba war a rek bu jubee kii rek teggi loxo tegaat loxoom ndekete nun noo ñemee fa mbindum sëñ tubaa teg ca sunu loxo waaye doomi sëñ tubaa da koy yëg ba tey dëgg ba ni mu de jële roccewaat lañ ko joxoon delloo ko ko joxoon loxoom laalu téere ba ndekete xasaayiti borom tubaa la xasaayit kenn du ci bind ay adresse xasaayit kenn du ci bind ay numéro téléphone xasaayit kenn du ko lem di ko def ci poos xasaayit xasaayit te du lu nu dal ñàkk a war mal mel xasaayit yi ñoo nu ko teg gis naa ci ginnaaw nit ñi dañoo bewoon di wane jànkatu xasaayit buy jàng mel ni ku ko jox xaalis di ko jox ay liaas di ko jox ay liaas ba yàgg mu jóg di ko ngàdd léeg-léeg ñun la wan image boo xam ne bii ku jàng xasaayit kee yeenu ko ba ca kaw tay ko fi suuf mu mel ni dañoo bëgg a weddi li sëñ Tuubaa waxoon xasida yii ku doo nit na mu daan yëngale ñi ci kaw haajat xasaa yi xulóobul anbiya xulóobul malaayika noonu la doon yëngale xolub góor yàlla yi maam Cheikh Ibra Fall dey xam nga ku ne xam na ko moom ci zikrullahi waaye daana def léeg-léeg bu ko ci yàlla xiiree mu ne yëkkatil ma kënu gi bu ko waxee rek jëwartu lay wax ndekete xasida googu kënu la te xima bilaadana an alqitaali wa kaana xaqan wa an aljidaali fi mu ne wa kaana xaqan taxawaayu anti misil la taxaw ci réew mi bakkaar yeeg fen yeeg caaxaan yeeg yëpp moo koy amortir mu dem ca àll ba noonu Sénégal ñii li ñuy def yàlla di ko defante ci sunu biir te gisuñu añ ba xëyunu dee ba jeex xasaay ci borom Tuubaa yi rek taw ngi xuloog xadda euh, ngi euh, taw te seelu yëgul sëñ Tuubaa gis naa mu bind ci xas day asbu yaat yi mu ne léeg-léeg mu ami doom am kër am njël am jàmm waa këram am ko dara waralu ko loolu dafa dëkk ak kuy jàng xasaayit borom Tuubaa yi da ngay dëkk ku nekk ak kuy jàng xasaayit mën naa am sax ma ngi lay tàngal fekk na moo la tax am kër moo la tax am njël moo tax am soxna am na xasida euh, xisab sëñ Mbàkke Maane bi ku ne xam na ko sëñ Mbàkke Maane dañuy toog di jàng xasida ba yàgg di jàng xasida Ahmad Souleymane bi sarfi an maziyaat yi kay maa tàqu de simaami li raziyaati xasida googu nga xam ni sëñ Tuubaa da cee gotti adduna fa xuttu anha ila ma laahu yadxulu nii bihi jinaanan xawat xuuran wa fiyaati hunna alxawaani lawaati xalbu taabiwiha yuxtaaruhu yaxtaaruhunna ala salma wa jindaati di andi melaw jigéen ur ay ni am xelam di xalaat ñu naan ah moo ne xasay dina jigéen ur ay ni dañ koy wayantoo muy xalaat loolu loolu def ci moom kiimaan sëñ Tuubaa ni cal la fi kaar mu ne ko mbàkke maa mu ne ko mbàkke mu ne ko ana fi mu ne luy sa yitte mu ne bu dee ci yitte àdduna dama soxna soxna mu daal di koy jox ak wasag ni ko toppal ci man ni ko toppal ci man sëñ mbàkke maa ne jël sa tala topp ci xaadimu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba ca àll ba sëñ Tuubaa teg ko fi benn ba ni ko tolol fii xaar ma ni meng ab diir jigéenu uru ay ni fekk ko fa di jàngaat Ahmad Souleymane gan doon jàng kër gu mag hunna alxawaani lawaati alxalbu taabibuha yaxtaaruhunna ala salma wa jindaat hóoru ladallahi atraabun muqaddaratun taxta alxibaabi min albusaat salimaati mun leen waaye yéen ñu ngi fu leen bàyyi ko ñu ne ko nuyu nu jëkk mun leen salaamaaleykum waaye yéen fi ngeen bàyyi ko noonu ko noonu àjjana lan bàyyi ko dun waa adduna nun noo nooy waa óorul ay ni lu ngeen di def fii mu ne sunu borom kër sëñ Mbàkke maane la ñuy wan sunu bopp te di ko waajal ndax léegi mu ñibbisi <laughs> sëñ Tuubaa di jàll jigéen ñee ni mes sëñ Tuubaa ne ko mbàkk baa ne ko mbàkk mu ne ko ñoo doon waxal mu ne ko mbàkk dee demee nii nay tey <laughs> diir bu gàtt la ci rek faatu <laughs> gisoon naa kuy jàng xasida fii xamoon naa turam xamu santam di jàng ma faatixal bisiri di ci jàng ay lim ba yàgg mu seexlu waa këram nangatul ay soxnaam jege ko naan leen da ngeen a xeeñ da ngeen a salte boo fekk rek xam na ni lee mu dem ndax mu ngi tàmbalee gis jigéenu urul ay ni xasida yi li ci nekk ci xasida yi rekk la ci nekk jàng génn xasida am yoolu xare bu rasulullahi ba sa xare sallallahu alayhi wa sallam ak xare bu ñu ma sa xare te ñu nangu kataballahu tabaraka wa taala anna hazihi alqasidata qaimatul maqama xasawaati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa xasawaati jamil xusaat fi sabilillahi tabaraka xasida yi mooy sange sudul sange soo xam ni du toj sange mooy forteresse mooy tata kataballahu tabaraka wa taala anna hazihi alqasidata hisnun hasinun li qailiha an sheytaani rajim wa an kulli aduwin zahirin wa an jamihi almakani dunya wal axirati wa an kulli shaqawatin wa an kulli wasatin waay lii ah dajeeg sëñ tubaa tax nu am ko de ah. dajeeg sëñ tubaa moo tax nu mën a am lu nuy waxandoog waa àjjana di ko waxandoog waa xamalatul arshi di ko waxandoog yonent yi di ko waxandoog malayka yi barki borom tubaa kon nag sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla fayal yàlla na fi yàgg lool te wér sunu xol seet na bu baax noo jox ñëpp rendez-vous incha allahu ci yeneen i jataay ah di jox ñëpp rendez-vous ci bis boobule waaye nag xam nga ni kenn duñu la onze tene wala dix sëñ Muntaxa moo xam fa muy dóor bésub la dix man dafa rëy ci man ndax sañ tubaab tubaab yee ko yóbbu woon te tubaab duñu wax Chaabaan duñu wax Ramadan duñu wax Shawal janvier la ñuy wax février mars avril tubaab moom du fàtte le 10 août moo tax bu nu ko fàtte ndax tubaab yi ñoom duñu fàtte le 10 août tubaab xamuñu fukk ak juróom-ñett ci safar tubaab xamul safar xamul rabiul awal xamul rabiul saani tubaab janvier la xam février te la plus sanglante défaite des français ñu ngi ko am le 10 août 1895. boobu nag daal bu am solo la on stop ci. ñu xam ni kee demoon ci géej gi kat sët yaa nga nee. dongoom yaa nga nee xasaay itam yaa nga nee. Mhm. corona day dem incha allah. incha allah asalaamualeykum wa rahmatulah.